ña ngi lay fay di la delloo siyaar bi waaw baada aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waaw man la seen mbokk Moussa Niang dëkk fii si Kër musa nekk membre si daayira sopp Serigne Babacar si bi nga xam ni Seydi Birane Niang moo ko jiite ba tax na loolu ñu am bis boo xam ne bu màgg la boo xam ni sun mbégte la suñ mbokk Mouhamadul Amin Ndiaye organiser ko def ko guddi gi yonente bi nga xam ne la ko taxawal ngir lancement de carrière am tey di première édition boo xam ni da ko tuddee yonente bi ngir feeñal liggéeyam ci bis bi ñu koy rafetlu bu baax am yéene ci mbir yi moom mu am yéene ñu jàpp ci mbir yi ba tax mu ñëw tudde ñu bis bi ñu fi ngir ndokkeel ko am si kontaante bu baax di ko ñaanal yàlla lim si nammu yal na ko yàlla defal yal na ko yàlla defal ay ati at ay téeméeri at yàlla def ñu ñëpp di fekke mu koy gëna def di ko gëna a man si barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam